ci parents yi ku leen poser question bu pertinente daf ne est-ce que xam ngeen lan moo leen fi indi waaye dama dégg ngeen ne ko waxtaan du loolu ngeen ko wax waxtaan ci la bokk waaye surtout da fi ñëw pour faire seen xol ak seen xel ndax da ngeen jóge ci année scolaire boo xam ne la ca ci ay contraintes yëpp ñëpp xam nañ ko kon nag jaaduna bu vacances jotee parents yi bégal ngeen changer d'air ngeen changer de mentalité waaye surtout na ngeen bàyyi xel Medivac dafa évoluer bu leen fait ne ren 2022 mooy deuxième édition bi li tax dafa évoluer dafa jëm kanam yéen ñëpp yéen a ngi fàttaliku ne première édition lan moo amoon defe naa football rek la woon waaye ren parce que cours de vacances gratuit am na ci ren yokk na parce que waxtaan li xale yi doon wax léegi particulièrement di leen sensibiliser ci danger yi nga xam ne moo mandargaal jamono tey bi loolu lu bees la amul woon ci Medivac ñun Jamra nag loolu la ñu BUPS ak organisateurs yi mu bokkal liggéey bi loolu la ñu sollicité ñun Jamra kon nag suñu wax alerte règle avertissement moi est-ce que vous a ngi dégg fan yi drogue bu bees boobu ñuy wax volet dégg ngeen ko am ñu koy tuddé ecstasy des ñu koy tuddé pills amna ñu koy tuddé comprimé sawarna ndax boko nané da ngay te drogue bi dafa melni ni nak day naxaate ma bëggoon ngeen yewu ci parce que coach Barma dafa wax ne fegu mo gën faju tubab ne il vaut mieux prévenir que guérir kon lolu moy sensu wax ji ñu teel leen a alerter ndax ngeen baña daanu ci piège yoyu xalé yu bari dugg nañ ci par curiosité fi mu ne seen i waajur ngi ci problème yu rëy ndax dañ leen ci bëgg génné mu jafe lool la docteur Madame, narcodépendance da ngay dem ba mu ci yow ba de da ngay à l'aise di am ay insomnie appétit que la meilleure formule pour échapper au fléau de la drogue c'est de ne jamais de ne jamais voilà de ne jamais commencer ou de ne jamais y toucher c'est la meilleure formule Là, je le vous comme vous avez ci dem ba ci da nga a l'esclave de la drogue kon la meilleure manière d'échapper à ce fléau c'est de ne jamais commencer ma len vous nak ñaari recommandation ci le ministre de l'intérieur euh, euh, euh, Félix Antoine Abdoulaye vous mané ko amna ay école yo xamné ne jaaykatu ñu nga fay ñëw di maye des échantillons gratuits extase waxna len ko sank c'est le nom scientifique de cette drogue di kann suloo xalé té bari ci boîte de nuit ak ci buntu école yi ñu di ko wax volé xam nga ñom naka lañuy def dama lay jox exemple ci madame Diawara bi tok xam nga dafa melni ñom bu di dem marché lélé léeg ñuy dajeeg ay agents commerciaux surtout bu féké dafa am ben produit de savon en poudre bu bess bu génn alors bu ñu demee di dugg marché lélé léeg ñuy dajeeg agents commerciaux yoy sol sen t-shirt ñëw fekk maman jawara rek abordé ko ne ko waa maman ki kii day sa bu pëndëx bi xew légui maman ne ah waaw xam nga ñun jamono ji dafa xat légui dépense kër gi légui dafa juste te bu ci juróomi dërëm wàññeekoo rek macha allah dana am lu manqué ci ndugal li ñu ne ko déedéet kii échantillon la c'est gratuit mu ne ah bon waa ji ne ko waaw waaw daal di jël benn sachet de vingt cinq grammes may ko maman Diawara maman Diawara dem këram bégal njabootam toggal leen ñu lekk ba suur ba mu paree mu daal di jël échantillon savon en poudre boobu raxas si ay plaatam ak yi boolam muy nes-nes yi mu fóot ci ay torchon mu set wicc ma bu ëllëgee Mama Diawara Ken du place ba nga agent commercial Baka, mayon produit boobu gratuitement Moula daal gis euh, jaaykatu jën yi ne leen ana gi ma gratuitement sachet euh, savon en poudre bi bi ma gis fii gars yi ne mu nale koñ ba Diawara na ndax savon bi Amalon, na lol, njariñ lool ba muy def mu ñew waaxu nak waye cette fois ci mu fekk waa ji nak daldi aju mu ne ko waaw sama càmmeñ yow day sabu bi nga fi may demb mu ne ko ah maman kooku échantillon la de day jaay léegi alors maman sera obligée tib ci dépense am loo xam daf ko waron jëndee leneen pour euh, lekku kër gi daldi jënd sabu bi moy narco narcodépendance su ko defee maman Diawara nak dootul mënu mukk dem marché te sóoraalewul sabu boobu léegi ñoom narcotrafiquants yi xam nga naka lañ koy defee ci école yi en général dañuy cible xale yi tux cigarette parce que ñooñu pour am leen moo gën a yomb bu ñu ñëwee ne la surtout ci heure permanence yi mooy récréation yooyu di am te xale yi di génn ci biti dem ci ñiy jaay njaay mu sew ci biti di am yu sew yu ñuy jënd dañ lay aborder na na na borom saabu ba aborder ma Diawara ne la waaw booy na ngeen def. ñee ko ah grand fi mu ne examen yi jege na y a trop de matière yu ñu war a parcouriser non fi mu ne métti na waa ji ne mais non loolu du dara xanaa yëgoo li xaw volet xoolal comprimé bi mu ngi ni boo ci jëlee benn rek ci gàttal day ubbi sa xel day tax nga jëli science loolu lañ leen di wax de nga daal di ko tontu ni maire a tontu woon jaaykatu euh, saabu bi nga ne ko waa mais grand xam nga ñun bu ñuy dem école paa Pass rek les York jox ak argent de poche buñ ci bëggé bolé lénen du ci non non non Li échantillon c'est gratuit nga daal di jël affaire bi dem laqatu ci ginnaw toilette ko ñu di siffler fin aux nga dugg classe di gis ay couleurs yu dul gis di dégg ay sons yu kenn dul dégg sa xel mi nga alors le lendemain bu 10 heures place ba nga rencontré un grand xaa wala grand jo kenn du la fa nga que maire yi jaay ay mango ki Dakar. waaw maire grand a fii laa un Il ñu la grand jo nga ne la ca bopp koñ grand affaire bi jox classe waaw affaire bi an naka mu grand bi aju ne a ah booy kooku échantion la woon léegi dañ koy jaay bu la dañ koy jaay te benn comprimé ecstasy di jar quinze mille francs te yéen goru leen yattu leen foo leen koy jëlee da ngeen di sàcc wala ngeen fekk seen yaay fekk fàtte portable am ci kaw bi ngeen jël ko doo leen ko tey loolu la narcotrafiquants yi di def ci école yi kon nag xale yi buntu école yi ku leen may tàngal bañ leen ku leen may loolu nga xam ne dafa mel ni bel bastik lank leen ndax dañ la koy may gratuitement ëllëg ñu mayaat la ko gratuitement gannaaw ëllëg gratuitement quatrième fois bi ñu ne la dañ koy jaay ci obligé nga lijjanti loo koy jënd te amu leen ko liggéeyu leen voilà kon nag alerte boobu laa leen doon jox waxtaan naa ci ak ministre de l'intérieur naa ko école yi nga xam ne ñu nga fay dem di yàq doomu jàmbur yi ndax ecstasy daw mu ngi doon jar benn comprimé te dafa rafet nag mu ngi mel ni tàngal boo ko xoolee moom da ngay def ne comprimé doliprane bu ñu coloré la wax nañ ko école ya nga xam ne ñu ngi ko fay jaay comprimé bi mu ngi doon jar vingt cinq mille francs daaw jacques janvier bii ñu passé prix bi wàcc na ba quinze mille mois de septembre bii may wax ak yéen cinq mille francs lay jar mais li tax mu dangereux c'est pas que ñoom dañuy jaay à perte déedéet c'est-à-dire dañuy am des produits de substitution très dangereux et très bon marché nous avons ñuy jël produit de base bi mélangé ko pour mu sakkan légui nak lan la lan la lan lan la volé di def ci nit fofu lay jéxalé ñen xam ko volet ni yamba principe actif te docteur yi wax ko tuddé ko THC le tétrahydrocannabinol manam moy toké bi tax tuxkati yamba bi des hallucinations visuelles et auditives nous le volet à à principes actifs actifs, ko MDMA MDMA c'est un concentré d'amphétamine amphétamine narcotrafiquants et qui qui l'hormone naturelle bi la def Nous doomu dit au niveau des, euh, glandes surrénales euh, l'adrénaline moi l'hormone de l'activité Xalé yi doon football di jongler ak c'est l'hormone de l'activité qui moy jaar ci yi stimuler les muscles les nerfs etc mais bobu dafa naturel ñun ñëpp ko am narcotrafiquants yi dañuy en laboratoire reproduire ko formule chimique adrénaline mu tudde parce qu'à l'origine, il y a des usages médicaux mais léegi dañ ko détourné def ko drogue Voler, ils dafa fees des del ak amphétamine moo tax xale ont une fausse impression de déborder d'énergie Ben. ñaareel ba une fausse impression de pouvoir dominer le sommeil la fatigue et la faim moo tax xale yi drogué wu amphétamine euh, euh, bu bu duñu euh, du ñu nelaw di nga gis ku toog ñetti fan ci néegam musique bi xarañ xarañi muy ñaqatoy xep du sonn du gëmmentu du nelaw koo ci xool surtout parmi ñi nga xam ne c'est des narcodépendants dañuy sew wow koŋ ndax duñu lekk moo tax xale yi tuddee ko le coupeur de faim doo am appétit ba noppi nag foofu laa bëgg a ngeen may ma nopp parce que amna incident il y a un mois ci ecstasy motax ñu ngi le commissaire euh, euh, euh, brigade des mœurs jigen la waye la bu madame Diawara ñu di Florence Mendy Jamra jox ay indication Jamra indication sur le trajet trafiquant de volets mu Banjul Dakar top nako ba jàpp na deux ou trois trafiquants de volets yi kay dugal ci dëkk bi di kan suloo xale yi di yok insécurité bi di tassé kon jambar la na ngeen ko tàcc bu baax mok madame Diawara alors le plus dangereux moy daf lay jox une fausse impression d'euphorie et d'immortalité xam nga ban accident mo am il y a deux mois xalé bu ah, c'était en France consommateur d'ecstasy Ils dit ko wax volé benn kër tàntam ci un immeuble boo 6 étages là. comme que dafa sous l'effet de cette drogue effet bi xam nga sentiment le sentiment de pouvoir voler Mouda dit dit 6 sixième étage maman qu'est-ce que mu ne je vole Top. ça a été son dernier saut kon c'est dangereux xam nga lu waral lool muy yamba muy assis, muy euh, euh, cannabis bi jógee Mali lopito bi jógee nigeria, ak brown bi jógee Ghana seen principe actif ak principe actif bu volé ñoo bokk benn destination c'est que dañu bokkul vitesse yi ñuy demee rek xam nga lan mooy seen destination mooy traverser système nerveux bi yéeg ba ci cerveau bi ñew ba ci malaanu kiiraay bi yalla baxé doomu cerveau bi té neurobiologiste le cortex cérébral cortex cérébral nak c'est le siège de la mémoire par exemple cours yi suivre depuis le début de Medivac ah cours de vacances cortex bi enregistré Nous, avons sa dialogue di le bon comportement citoyen Nous nga respecté sa papa na nga respecté sa yaay na nga góorgóorlu na cortex bi enregistré soo leen ba atteindre la vie adulte ñu leen wax ne le bon citoyen doit éviter de ñu la dénkee alalu mbooloo nga di détourner etc. cortex bi moo koy enregistré léegi volet principe actif bi ci muy MDA ak yamba principe actif bi ci muy THC xam nga lan c'est une mission Si si cerveau bi jàpp cortex cérébral bi bi nga xam ne fa la norme sociale yi nekk ñu anesthésier ko

tante ji amna deux ans peut-être deux ans et demi trois ans waye wax ji sax leerul xalé bi leerul sa wuy dem marché daf koy euh, jeune bi jeune bi c'est un narcodépendant ci walu drogue mais bi dem marché buntu gi nit ñu né lan la ñu né domam bi am deux ans et demi 3 ans mom la ñu ñu yamba consommateur de de de volet mais lirez le rapport d'audition police bi vous ko posé question ak la moutonne, vous da ngay ci yalla nga xamné vous leen drogue avez ni na daw bu di dañ ko laaj yow am deux ans et demi trois ans mënugul sax wax mënul wax nit lu bon sax bu yow ngay ci lu tax nga rendi ko rendi bu ñaaw bii lan moo la poussé ba nga def loolu xam nga lu mu tontu non c'est que dama ko jaawale ñu ne ko jaawale commissaire bi ne ko kan nga ko jaawaleel mu ne lapin bi ci kër gi laa ko jaawaleel kon na xale yi loolu la volé di def nangeen ngeen moytu volé jaru ko